nekk sa xol la xeexu vider say rancune la say amertume say mettit loolu mooy xeex bi donc encore une fois nañ jóg xeex xeex bi ñu jàll ci leneen buñ ko bàyyee nii encore di xaar ba le 30 le 30 procès boobu noonu procès spécial la waxoon naa leen ni ña ngay jéem a yóbbu procès ba weeru koor lu tax loolu parce que dañoo jàpp ni sénégalais bu xiifee du amati xalaat bu xiifee du jóg bu xiifee du xeex bu xiifee du amati force bu xiifee heure ndog rek lay xool donc il faut ñu rusloo leen parce que nee nañ sénégalais buy woor heure lay xool même bu lay laaj heure julli ma ngay xool heure bi secteur la lay bu sañoon day yëngal horloge bi mu ñëw secteur heures pour mu mën a ndogu donc c'est le moment de leur que suñu nation jaral lañu bañ a lekk jaral lañu bañ a naan bañ a jaral lañu bañ a rafle kon procès bi procès spécial la du procès public le 30 procès spécial boo fa demee doo dugg procès procès ñu vidé ko et dañoo bëgg daane Ousmane Sonko six mois sursis ak amende moo tax ñu ne leen boo leen deful tambour battant ñàkk nañ parce que minimum six mois sursis lañ ko bëgg a dóor ak amende forfaitaire mu war a fay mambay ñaa sàcc nga jàpp sa sàcc la main dans le sac yuuxoo sàccee mu porter la plainte ñu jàpp la yow ne la lu tax nga ne ko sàccee xañ la say droit xañ la say devoir tëj la ci kaso yi sàcc ba di dox soxlaam est-ce que yéen sénégalais yi pare ngeen pour seetaan loolu sàcc bu sàcc suñu alal ñun sénégalais yi am kenn ku yeewu ci biir kër gi yuuxu wóob sàcc ay sàcc ay sàcc ba dem jubali police porte plainte ne kii nee na ma ñu jàpp waa ji ne sàcc bu ko dóor ci kaso bi jàpp waa ji ne sàcc bu ko xañ ay devoir am bu ko xañ ay droit am te pourtant ki ne sàcc du alalu baayam du alalu yaayam waaye alalu nonno alalu askan la kon loolu sénégalais waru ko nangu du problème am problème mu Sénégal la ku xamul Mame Mbaye Niang la Mame Mbaye Niang jaaxal Mame Mbaye Niang en 2010 gis ngeen ko tiset bi ma soloo ko gën tiset bi xool leen tiset bi ma sol moo gënoon tisetu Mame Mbaye mu ngi woon ci giriya en 2011 jëm 2012 Mame Mbaye ñaawoon ci grieux tisetam nii la meloon nii tiset ba mu soloon muy tiset bu gën ci tisetam ya nii la meloon Mame Mbaye ñaa ci car rapide la ñëwee ci car rapide ya Mermoz la jógee kër Macky di tëñëx tëñëxi dugg ci car rapide yi di kolo kolo fukki dërëm fukk ak juróom fukki ba ba ba ñëw fële nga xam ne moom mooy assemblée nationale ak tisatam bu furi bu toll nii tey Mame Mbaye Niang c'est un milliardaire université Mame Mbaye Niang defu fa quatre yu ma bu amee licence fala la yem amul beneen diplôme amul dara deful formation professionnelle xëy ataaya la nekkee kër Macky Sall ak doon geenam boo demoon kër Macky Sall Mermoz Mame Mbaye nga fay fekk ab Biram Fay Biram Fay Mame Mbaye ñoom lañ doon yónni ñoo doon laab ñoom Amadou bu Mame Mbaye Niang laabee Amadou euh, Biram Fay laab Ibrahima loolu moo ne woon seen liggéey foofu ñu leen di Biram Fay di ataaya Mame Mbaye Niang di dem di di di yóbbu kaas en 2011 on a été la du dara on se on se souvient bu Biram Fay ataaya Mame Mbaye mooy jël kaas ya jox Macky Sall mu mu naan mu dem jox ñoom Amadou ñu naan mu dem jox ñoom Maram ñu naan mu ne moom mooy wër ci sa di joxe tokkaar ñu naan tegalaat ko kaas bu mu yóbbul Biram Fay Biram Fay xel li ñooñu ñoo doon tey ay milliardaire ñooñu ñooy taal dëkk ñooñu ñoo sàcc sañu alal ñooñu ñooy taal suñu dëkk ñun ñun ñoo ñàkk fayda ñun ñun ay ataayakat ak ay xellikatu kaas ak ay servir katu ka ataaya ñoom ñoo ñëw nekk ay seen suñuy autorité de la république di taali dëkk toog fu ñu toog di taal ay dëkk ci ay fen ak ay kàcc man bu toogee di xalaat loolu dama naan mais Sénégal mii lan la mérité ku la gën a yées gën la bon gën la toox mu moo ñëw jiite ñu Mame Mbaye moo yor ay kër Mame Mbaye moo yor ay immeuble billahi bàyyam asag naa la ne woon baayam amul salaire u cinq cent mille imam mam imam Mbaye moo nekk bàyyu Mame Mbaye Niang Mame Mbaye Niang juddoo ca Fès wax nañ leen ca juddu ko ku fàttali ko soxor ca juddu ga ca fees kon Mame Mbaye Niang nga juddoon ca fees baayam nekk Asegna dëkk ci këru Asegna ya kon kooku baay ya yoru dara imaam la sax léegi ñu réserver ko loolu yaayam di ab marocain xam ngeen ni ñu ko xamee Mame Mbaye mooy taal suñu dëkk ñun ñun suñu baay yi di sénégalais cent pour cent suñu yaay yi di sénégalais cent pour cent daj lu ne ñu dugal ñu ci école yi ñuy jàng di carrière ba torox tot ñi mambay ñaa jaar ci farax def li mambay ñaa tey yor ay milliards ñoo ñooñu ñooy taal dëkk Sénégal toog di xoole ñooñu ñooy ñëw di indi fi lii lépp jàpp ay doomu sénégalais cent pour cent bëgg leen toroxal jàpp ay doomu sénégalais de père et de one hundred percent di leen wàccee ko toroxal jël affaire yi ñu naan ay man bu ma di gis ay mambay ñaam man affaire dama naan mais la terre tourne mais la terre je dirais même la terre tourne c'est inadmissible c'est incroyable oh les gars nañ matal affaire waay nañ matal affaire yi mu jeex nañ bàyyi ay commencé dara duñ ko yeggali nañ ko matal mu jeex lu ma leen waxoon nag gis ngeen man samay wax damay rappeler rek le rappel est pédagogique da ngay rappeler doomu aadama yi parce que boo nekkee di xeex c'est pas parce que doon ngay wax parce que fam lo metti déedéet parce que xeex bu mettee day bëri ñuy manipuler bu mettee day bëri ñu ñuy yónni plus que ñuy yónni ay noon ñuy jéem a décrédibiliser Mollah Morgun may gën a xam ni sama xeex am na solo plus que ñuy yónni ay doomu aadama ñuy attaqué page Mollah Morgun may gën a xam ne sama xeex am na solo fii ku fi amul njëriñ kenn du la lijjanti buñ la commencé lijjanti am nga njëriñ sénégalais noonu la mel boo toroxee nekk ci koñ bi kenn du la lijjanti noon yi ma nga tàmbalee ca ba ngay commencé defaru ci la noon di ñëw sénégalais tànk mi ngi naan la ndeysaan soxlawu la ndeysaan moom ay xarit rek boo bëree xarit ndeysaan la moo tax ak kilifa ne woon defal lu ne ba bul dégg ndeysaan ma ne ah kilifa gi lu tax loolu mun ne ma déedéet ndeysaan kenn du ko wax ku ku tekk ma ne ah ñu ne mu ne ma waaw Mohamed ma ne ko waaw mu ne ma seetlul sénégalais fu mu ne ndeysaan saan ngaa toox waa ji am na milliard ndeysaan mos nga ko dégg ma ne ko déedéet góor waa ji tabax na kër gu tey nii buy laal asamaan ndeysaan mos nga ko dégg ma ne ko déedéet góor waa ji torox na loo ciy teg ndeysaan waa ji lekkul loo ci teg ndeysaan waa ji naanul loo ci teg ndeysaan waa ji léegi dee loo ci teg ndeysaan waa ji feebar na ba torox loo ci teg ndeysaan mu na ma ndeysaan sénégalais fépp fu mu ko yóbbu torox tàng la muslul ci ndeysaanu sénégalais góorgóorlu ba bul am ndeysaan góorgóorlu ba bul déglu ndeysaan góorgóorlu ba bul am ndeysaan ci sa sa dund dundub sénégalais bu amee ndeysaan mooy yàqu na mooy toll na ci moment wu torox tànge ci moment wu yàqu ndeysaan yàlla nañ yàlla musal ci ndeysaanu sénégalais yàlla nañ dund ba dee ba duñ dégg saanu sénégalais yàlla nañu yàlla muccal te musal ñu ci ndeysaanu senegale feebar na ndeysaan léegi mu dee ndeysaan dee na ndeysaan suul nañ ko ndeysaan ñu ngi koy ñaanal ndeysaan tey la dëjëm ndeysaan tekki na déedéet amul ndeysaan defar na kër amul ndeysaan am nay milliard amul ndeysaan milliardaire la amul ndeysaan torox na ndeysaan yàlla nañu yàlla musal ci ndeysaan ba may wax waxu pompe v nan est-ce que xam ngeen ni gouvernement bi day pompaate yaakaar naa ni bëri na ña ca newoon ne kii day fen kii day kàcc te day nangam nangam ma jox leen junni junni façon doomu aadama buñ fi pompe. Ousseyn Manga expliqué woon naa ko nañ ko jéem a pompé expliqué naa fi Pape Alé Niang ba ñu doon jéem a pompe ca restaurant ba mu rëcc. ma mujjee dal ci ndaw soosu nga xam ni mu nga génn fu ne naan leen dimbale leen ma ma faju te Toussaint Manga boobu tante wuñ ko woon Macky Sall ma nga doon tante kii nga xam ne moom mooy euh, Ousmane Sonko ba ma leen di wax loolu du tey ba wax leen pompe ba ak ñu bari ñu ma fi wax ne leen pompe baa ngi fi jéem nañ ko Ousmane Sonko ci assemblée nationale mu rëcc mu mujj ci Toussaint Manga def nañ ko siiseloo ne leen pompe ba jéem nañ ko ci siiseloo ci assemblée nationale jéem nañ ko siiseloo ca euh, euh, foire foire euh, Paris ba et cetera et ca pomp ba plus que ñuy ñëw di décrédibiliser mooy la may wax mooy dëgg parce que la may wax day feeñ nu mu yàgg-yàgg day feeñ def nañ ko fi doomu aadama yu bari rey leen silencieusement inodore incolore sans saveur gis la ko ngay catti cati di dox ndànk-ndànk bu xëy faatu ñëwaat leen bi mujj bi mën leen am ngeen erreur xam nga am na ñoo xam ni ñoom patriotes yi dañoo jenn patriotes yi jàpp ni ñoom ils sont le cerveau de l'humanité ay nit yoo ay extraterrestres lañ moo tax Sénégal ñun ñëpp on est des mais boo gisee yenn sénégalais ni ñuy bëgg a seen bopp ay réel lay def tey ñëpp ay guerrier lañ tey ñëpp ay combattant lañ tey ñëpp ay fighter lañ tey ñëpp nice. am na ñu foog ni ñooy centre monde bi. fekk monde bi romb na leen di wéy gouvernement yi pexe yi ñuy teg lu leen nguur jar kenn xamul ña lu fu mu day tey nag xeex bi yomb na kum neex jóg taxaw ne xeexkat nga kum neex nga identifier ku la neex mais bu ñu delloo film bi dix ans derrière quatre vingt dix pour cent ñi fi nekk nekk ñu fi woon buñ ñu fekk see deux mille deux mille vingt et un la ñi fiy dégg yëpp mille vingt et bu ma fàttalikoo tey en 2011 2012 2013 deux loolu yëpp amoon na xeex ñi fi nekkoon ñëpp gisuma leen kon gis nga ñi fi nekk tey ànd ak ñun ñi gis nga ñi ñu àndaloon bañ ñu bàyyee ñii am jëkkër nekk ay maire toog seen kër yi ñii ami jabar tal leneen ñii am njaboot tal leneen gis ngeen ñooñu ñun nag ñoom ñoo nekkoon fii nekk ci xeex bi tey ñoom ñëpp am nañ ay yeneen responsabilité dem nañ seen yoon ñun ñi ngi fi en deux mille vingt et un lañ gis ñi ñëpp génn ñëpp deux mille vingt et un lañ leen xam Ousmane Diagne ñoo kii Diao kay koof yoo xam ñëpp deux mille vingt et un lañ génn ànd nañu ñun maa la waatal ci yàlla dans dix ans ñooñu doo leen gisati dinañ am yeneen responsabilité doo leen gisaat ci terrain bi yàlla nañ fi yàlla bàyyi ba boobu di gisaat yeneen nit yu ñëw toppaat ñun dinañ gisaat yeneen comme nuñ gisee woon yeneen ya ñu mujjee daanu ci yoon ba ñii dem liggéey ñii wuti leen luñ lekk ñii am ci jabar ñi am ci ay jëkkër xam naa ci ñu baree bare joo xam ni ñoo doon ànd ci xeex tey gisatuma leen ña nga ca leneen gis nga ñii fi ñi fi génn 2021 bii ànd ak ñun ñii nga xam ne ñun ñoo xëcc train ba depuis 2000 di ko xëcc di xëcc ba 2012 xëcc ko ba nii ñu ànd ak ñun ñooñu danañ toogaat ñun ñu continuer amaat ñeneen ñi ñëwaat dudd ñoo fekk si waat ni fii ak 10 ans incha allah bu ñu fi yàlla bàyyee